parce que euh, Idrissa Seck dafa dem rejoindre la mouvance présidentielle mhm. donc par rapport logiquement au résultat de la présidentielle passée moom mi amoon 15 pour cent il devient le chef de l'opposition mhm. loolu kenn ci dara mhm. voilà et aujourd'hui un chef confirmé parce que ku xool li xew Kër Massar finalement ça s'est confirmé hein oui oui maanaam nit ñi moom moo leen bon on parle de coalition et cetera. il y avait nit ñi moom usman Sonko moo leen fa tax a dem. c'était pas la coalition qui les intéresse. Mm-hmm. c'était Ousmane Sonko c'est vrai. moom la ñu demoon ñenn ñi ils le voyaient pour la première fois. Mm-hmm. ñenn ñi ils étaient allés vraiment lu exprimer toute leur solidarité ak leur détermination à lutter. Mm-hmm. à ses côté donc loolu gis na ko euh, yëg na ko ci seen diggante. xam na ne yor na doole fi mu toll nii. loolu moom ça c'est sûr. Mm-hmm. waaw Sonko fu mu toll nii euh, yor na doole. Mm-hmm. parce que déjà man sànq maa ngi koy wax ak euh, voilà benn maire euh, bu bu bu bu Pastef Khadija. maanaam mm-hmm. ko Ousmane Sonko peut-être particularité bi nga xam ne seetlu nañ ko aussi si boobu les meeting il y avait la présence jigéen ñi jigéen yu bëri dañoo ñëwoon au moment bi ñu koy accuser de viol. waaw xam nga jigéenu jigéenu Sénégal yi. jigéen sax de manière générale. <laughs> jigéen ak xale. ñaare lépp lu ñu bokk nga naan lii de ah yëfi jigéen la ak yëfi gone la. moo la mooy ëpp avenir la paaya nekk. parce que paa yi ku dee ñu dee ku deewul ñu dee donte dee nag jagleeluñ ko paa. mais en général jigéen ñi. ak xale yi mouvement bu ñu adhéré. jarul a minimiser jarul a ñàkk a bàyyi xel. Mhm. waaye yëfi gone la rek yëfi gone wax nañ ko fi ci ay mbir. ba mu àgg noo xam ne tubaarkal la. dëgg la kenn mënut koo lijjanti. moo tax euh, vraiment daal il faut que toutes les mouvances politiques du Sénégal se prennent au sérieux ouais. toutes nag. Mm-hmm. pouvoir comme opposition. Mm-hmm. parce que aujourd'hui damay wax ne boo nekkee un leader politique. Mm-hmm. boo xam ne tu aspires à diriger un pays. Mm. da war a dund comme ku diriger un pays. dëgg la maanaam euh, da daan wax ne nit lu mu bëgg da koy nuru mhm. maanaam soo soo jógee di wut ngërëmul yàlla mhm. da ngay yor melow ku am ngërëmul yàlla loola day tax nit ñi seen njort day rafet ci yow mhm. maanaam képp koo xam ne tey chef de parti nga ni danga bëgg réew mi nañu la jàppee ni ko yor réew mi nañ la ko jàppee mooy yow na nga koy dundee ca la mu laaj ci éthique laaj ko ci déontologie laaj ko ci morale laaj ko ci doxin laaj ko ci yaatu dënn laaj ko ci rafet njort laaj ko ci diisoo laaj ko ci déggoo laaj ko ci ubbite mooy bu ñuy boo parce que fi mu toll nii nous sommes en 2023 sénégalais yi xanaa 2024 yaa xayti dañuy dem élection hmm. nit ñi war nañoo def déjà tous les chefs de parti politique déjà, de ce pays là élection yooyu fu toll nii waaw àggaguñ ci sax mais li ma bëgg a wax mooy ah. chef de parti politique yu Sénégal yi mhm. nga xam ne ñi déclaré seen candidature ak ñi ko déclaré gul te di ko nëbb war nañoo càmbar réew mi mhm. càmbar ko sur le plan infrastructure càmbar ko sur le plan sanitaire càmbar ko sur le plan démographique càmbar ko sur le plan comportement ak lépp loo xam ne ak na ci dundu réew mi xool la ca baax la ca bon la nga xam ne boo faloo moom nga ciy saafara génn tamit jokkoo ak ñi nga xam ne bu ëllëgee buñ génnee ñoom lañu ñu war a liggéeyal parce que nous ne sommes pas dans un no man's ci àddina mm. Sénégal dafa am ay relations diplomatiques kon ñoom war nañu génn xool seen seen seeni relation internationale xool seen carnet d'adresse naka la ñuy jiitee réew mi loolu yëpp nga xam ne yow boo paree buñ la nee bismillah doom lu la bett waaye fi toll nii benn candidat ci politique bi taxawagul ne réew mi kat su ma ko yoree nii laa koy yoree tàmbali naa di lii laa gis ne moo fi yàqu ak lii ak lii ak lii lii ak lii ak lii laa on ne nous propose pas de projet de société. est projet de société boobu ceddo mhm. may neen ko ñi nga xam ne euh, ñoo nekk ses opposants waaw parce que opposants yi yëpp nga xam ne ñu mun nañu wax ne ñoo nekk en face du président Macky Sall mhm. ku nekk am na euh, lu ko justice ngàll si dossier si loosam Khalifa Ababacar Sall mu ngi noonu Karim Meïssa Wade mhm. cette fois-ci kii nga xam ne mun nañu wax ne euh, mooy nekk force de l'opposition bu Ousmane Sonko am na procès boo xam ne mu ngi koy xaar digganteem euh, ak kii di Adji Sarr. Mhm. finalement est-ce que nekkul aussi euh, nguur buy nekk en face moo nekk bëgg a naxasal li nga xam ne moo nekk sa débat de société euh, bi nga xam ne sénégalais yi moom la ñu. waaw gis nga gis nga buñ ne parti politique. Mhm. c'est pas njiit li rek moo am solo. Mhm. ci ginnaaw am na ñoo xam ne ñoo ëpp solo njiit li. mais njiit li mooy nit ki nga xam ne. moo gën a présentable ci membre parti bi ñu am. ci mu jàkkaarloo ak askan wi di wax ak ñoom di leen proposer li nga xam ne xalaatkatu parti bi. moom la ñu xalaat bind ko. loolu mooy li war a am cest à parce que kii mi ngi ci ay démêlés judiciaires kii mi ngi ci ay problème kii ma nga dowa que ñoom amuñu larges mën a toog liggéey ci projet bu ñu mën a jébbal askan wi. ngir ñu xool ko c'est vrai que nag askan wu mer daanaka dañuy tëx. nit ñi euh, fi ne faaleetuñu sax kuy wax ak ñoom naan leen fii la réew mi toll fii laa ko jëm ah, parce que nit ñu mer dañuy tëx te sénégalais yi moom quoi qu'il arrive mm-hmm. liberté wóor mooy y a une tension sociale très palpable dëkk bi am amee na am na tàngoor am na am na lu fi xew lu électrique loo xam ne euh, baaxoowul di am ci réew mi mm-hmm. kon aussi bokk na ci xalaat yooyu ak pexe yooyu ak tëralin yooyu ku mën a apaiser les tensions sociales mën a indi un climat de social de société boo xam ne euh, ndax jàmm gën lépp. Mhm. Serigne Abdou Lahad noonu na. Mhm. jàmm bu amee ku ne mën naa ne ci dara. Mhm. waaye bu jàmm amul loo jàppoon di nga ko teg ba jàmm am. tension sociale boobu ngay wax. est-ce que amul tour le procès Adji Sarr Ousmane Sonko euh, déjà Ousmane Sonko nee na moom du uy ji. méga meeting bi bi mu organisé wone na carrément comme ni nga waxee doole bu ma. est-ce que nee na du wuy ji waxul ne du wuy ji dégguma mu ne de. lan la wax. bu du ma wuy ji. waaw dégguma ko mu wax. lu mu wax. Euh, wax na. Hmm. ne sës na sës na. Hmm. Euh, wax na ay baat yoo xam ne baati ko mer la du ma jaar. waaye du ma wuy ji. nee na carrément ce procès euh, euh, benn but la am pour mun koo teree pour mu doon candidat en deux mille vingt quatre. waaw def na testament moom ak président de la république Macky Sall euh, ku nekk da dina xool kan la si bakkenam di des mu nekk ko mel ni comme Ousmane Sonko. moom ce discours de vent à fu mu toll nii moom la am diggante ak kii di président de la république Macky Sall. ban analyse ngay def surtout euh, euh, ci discours yooyu noonu ak tamit ban njeexital la mën a indi aussi ci équilibre dëkk bi. loolu li ci li ci li ci nekk en fait responsabilité la ci am. Mhm. mais ki ku ci ëpp responsabilité sax c'est le chef de l'État. ah oui. Mhm. gis nga li xew ci réew mi njàbbi tey. Mhm. jàmm jiñ fi bëgg. ak stabilité bi ak calme bi ak ak ak tension sociale bi wàcc. ki ko mën a def léegi mooy président Macky Sall. en quoi faisant. en quoi faisant déjà ñi ñu tuddee ay otages politiques yëpp te ñu ne ci kaso yi ñu bàyyi leen ñoom ñëpp ñu ñibbi seen kër. Mhm. c'est un pas. li ci hmm? même sax ñu ñuy ci force spéciale yi. force xool dañuy wax rek xam naa li ma la wax c'est-à-dire xoolal. <laughs> bari na fi ñoo xam ne jàpp gi ñu leen jàpp. Mhm. c'est des c'est des c'est des mhm. c'est des petites cabales politiques yoo xam ne. du ma wax sax que Macky Sall moo ko def mais que dañ koy def pour lui faire plaisir. mais c'est là où se trouve le danger bu ñu demee ba instrumentaliser justice. justement parce que xam nga la justice elle a toujours été instrumentalisée. Mm mais à un niveau moins perceptible pour le pour le citoyen lambda. Mm -hmm. c'est-à-dire le chef de l'État bu ñu fàtte ne moom euh, aussi c'est le chef de de la magistrature. Mm c'est le chef suprême des armées. c'est son parti qui est à l'Assemblée nationale majoritaire. Mhm. kon kooku on lui a presque donné les pleins pouvoir donc ku ñu ñaan mu ba ko mu ne leen dugal leen demande ma appuyer ko ma appuyer ko mooy day jël téléphone ne eh, saa yi bàyyi leen diw ñu bàyyi ko mu ñibbi donc suñu xëyoon tey jii man xawma sax kan kan lañu jàpp mënuma leen a lister. c'est des mais bu ñu leen libéré woon ñëpp. ñëpp laa wax sans exception woo leen libéré leen ñoom ñëpp ku ne ñibbi sa kër. déjà ça va être une bonne chose. Mm-hmm. li ci topp. mooy un dialogue avec ses adversaires politique nawlonte joxante cër wormaalante parce que nag à part li fi amoon ci Covid bi. Mm-hmm. président Macky Sall musul toog ak opposition bi ñu waxtaan. Mm-hmm. te opposition dafa respectable ci démocratie. c'est gis nga fi mu toll nii xanaa xamoo lu coow li bari bari ñi seqi njaboot yi dañ naan. bu dee fi mu ne Sénégal bu dee ci wàllu politique. boo doon seet ñi séqi njaboot gi danga naan Macky Sall ak Ousmane Sonko. Ah. ñoo ñu ñoo séqi njaboot gi. dëgg la parce que kii moo jiite nguur gi. kii moo kii jiite ku jigi mhm. ku jigi rek ngay wax. pour te diir que ñëpp gi ci biir. képp koo xam ne opposant ga yaa ngi ci biir. <laughs> li ci toog mooy buñ naan wàllu diine ji. Hmm. dañ naan la ah, boo demee Touba dem teawoon dem Ndiassane dem ñaseen dem Léona dem Daaka ba daanaka. ñi ci des bu ñu waxtaanee ci seen biir ci téléphone la nga bëgg danga ko am mm-hmm. noonu la réew mi tëddee donc il faut que qu'il un dialogue social mm-hmm. sincère mm-hmm. bu am diggante au pouvoir ak opposition parce que cette affaire la comme toutes les affaires qui l'ont précédée mm. mën nañ ko régler